alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala maulana rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di nuyu équipe bi nga àndal yépp jaar ci yéen di nuyu waa leeral TV ak leeral FM la ko ci kaw ba ci ñëpp leen jot li nuyoob sëriñ bi jërëjëf si laaj bi am na solo fii mooy Daaru Salaam dëkkab Cheikh Seydi Alaaji Omar Ndaw radiallahu anhu mu sos dëkk bii 1947 bi muy sañ ci dëkk bi 1947 boobu mu ngi am 47 ans ndax mu ngi sosu moom feeñ aduna 1901 ba mu amee nag 47 ans la sos dëkk bii di Daaru Salaam li ko jiitu sosoon na beneen dëkk dañ ci dellusi moo ko goral boppam ànd seeg ay taalibeem ak mbokki jullit yi bëggoon lu baax ci jamono boobu te fekkee woon bañ ko sose bañ ko goree boobu fii àll la woon ñu toj ko moom mu toj ko yafi nekkoon te dëppoo wut fu nit war a dëkk mu jëlee ko fi bam ko tojee ba mokk moo waxal boppam ne tuddee na ko Daaru Salaam bis boobu rekk la njëkk wax lu yéemu ci dëkk bi keroog ba mu ko tuddee Daaru Salaam daf ne dëkk bii di Daaru Salaam rusuma ku dee fii ci dëkk bi ndax képp kuy dund bis dana ñëw nga dee waaye rus naa ku dee ci dëkk bi ñu denc la fii nga dem safara loolu rek kéemtaan bu njëkk la ci dëkk bi mu sos ko ànd ak ay taalibeem ak ay muqaddamam ak njabootam nekk fi comme moom liy mission am ci kaw suuf mooy jàngale ak yare ak defer ay nit ba ñooñ mat ci yàlla yar ay nit tarbiya leen bañ mat ci yàlla mat ci yonent bi sallallahu alayhi yooyu lim defer ci ay nit nit mënu ko lim damay faral di wax ne lim defer te xamuñ leen sax moo ëpp fuuf ñim defar te ñu xam leen te dana am ñoo xam ne mën nañ leen see tudd ña ña xam ñooñu suñ déggee turu ñooñu même suñ xamut seen sëriñ mën nañuy natt tolluwaayam ci ñim defar mu kon mu fi yare mu am fii daara di jàng di jàngale di tarbi ay nit leen xamal yàlla di defar ay nit yoo xamante ni mujj nañ ci defaree loolu mooy cosaanal dëkk bi kon mu ngi ko sos 1947 moom yàlla si mbaaxam mu ngi sosoo àdduna walla mu ngi feeñee àdduna si dëkk bi ñuy wax Ndaama mu ngi si département wu Nioro bi ci région Kaolack Kaolack si commune Daaru bi ñuy waxee. 1901 ci kanam ñaari waajuram waajuram wu góor mu ngi tudd Tafsir Xaliyu Daawa Ndaw waajuram wu jigéen mu ngi tudd Soxna Aysatu Njaay ñaar ñooñu ñoo ko meññi mu feeñee ndaama 1901 baayam moo ko yaral boppam moo ko jàngalal boppam bi mu feeñee ba am fukki at la ko baayam dalal jàng ci daara ci mu boole te lu ko jiitu mu doon sàmm ay gàtti papam waajuram wu góor dafa amoon gétt ak nag jarga bi mu amee juróom-ñaari xat la ko dugal ci caawa ki muy sàmm bi mu amee fukki at mu dalal ko jàng al quraan di ko jàngalal boppam mu boole jàng ak sàmm moo baayam ci àll bi baayam ma koy wax fuñ amoon démb si mbind mu wax ko ko ñu dalee foofa ba la soo baayam ñu ñu taxaw foofu njàng mi kéemtaan daan ci feeñ ndax boobu xel mi ubbeeku na ci ci xanam boo xamante ni nit mënu koo bindal lu ko doy loo ko bindal dana ko xam ci saa si mokkal ko tëtu ko fàtte ci diir bu gàtt ci fukki at ak juróom wala fukki at ak ñeent ci la nekk li ñuy tuddee kàng fóode mooy jàng alquran mokkal alquran baayam tafsiral ko alquran jàngal ko xam-xam ba mu nekk fóode mooy muy dajal téere yi ci diir fukki at ak ñeent te wax naa la bu mooy dal jàng mu ngi am fukki at kon soo boole fukki at ak fukki at ak ñeent ñaar fukki at ak ñeent la loolu la dund ak waajuram wu góor mu wàcc dem barsàq bàyyi ko fii ak ay magam ak ay rakkam moom nekkul woon taawu góor gi nekkul woon caatam mu ngi woon ci dooma bi ci digg bi bii mu amee ñaar fukki ak ñeent baayam nekk ci mujj ak jamonoom xoo doomam bu góor boo xam ne mooy doomam bu mag mooy suñu maam baabakar Ndaw ñu gën koo xam ci maam Babou Sën moo doon taawu góor gi tafsir xal yu daaw ndaw ne ko maa ngi ci sama jamono bu mujj ci àdduna def li ñëpp di def soo tolloo ci jamono boobu te yàlla may la sago nga mën a dénkaane sa gannaaw bokk na ci lam ko dénk mooy su sama bakkan bi jeexee na ma xomar mii taxawee xomar mooy Seydi El Hadji Ndaw doomam la boobu mu ngi am ñaar fukki ñeent xam nga ku xool loolu te boobu tund wi bari na ay boroom xam-xam bëri na ay nit yàlla biñ waxee ne góor gi nelaw na rek ñu bëri lu seen xel daj mooy ka koy taxawee de diw sàngam la war a dox wala diw sàngam fekk moom si dundam la bàttali ne man su ma fi bàyyeekoo te wax na ne maa ngi ci wàccaay waaye na ma sama doom bii tuddoo Xamar Ndaw na ma taxawee wax ko taawam bi yàlla dogalee bakkan bi jeex ñu tàggee ko kalifa yëpp ñëw dëj bu mag ndax kalifa la woon moom baayam bi ñëpp taxawee doomam bu góor moo jóg taxaw nuyu mbooloo ne sama baay wax na ma ne su bakkanam jeexee doomam bi ñuy wax Omar Ndaw na ko taxawee ñu bari keroog xéemu nañ ndax la fa dajee ci ay kilifa mu baatle woon ne na ko doomam bu am ñaar fukki at ñeent taxawee loolu lu xéeme la soo ko gisee ci saayir ah ñu ne ana Omar ñu xool ko gis ko ba magam ne ko demal nga waaj ndax sama baay waxoon na ne nga taxawee kooku mooy ki sëriñ bi njëkk taxawee jébbal ko borom moom muy waajuram wu góor te boobu ñaar fukki at ñeent la am gannaaw buñ béyee koo foofu dëj bi jeex ci ndigalal baayam boobu wax naa la nekk nag kàng fóore nag waaye ni jamono bindoo ak réalité yi am ci gox yi baayam na ko su sama bakkan jeexee laxasal bul toog fii laxas mag ñi dañ ko daan def mooy bayee koo ci daara dem ci beneen daara loolu moo waral sooy wax taari xam di wax jaar-jaaram foo nga tudd dëkk bu ñuy wax jaamal moom it muy dëkkab diina di dëkkab daara kalifa yu bare surtout si tund wi jaar nañ fi boobu la laxas dem jaamal am fa juróomi at si daara ji mu ngi fa dem 1924 fa la nekk si daara jooju ba 1929 mu xalaat ne ñibbi jot na ba moo ñibbi mu dem si dëkk boo xam ne maamam bi jur yaayam bu góor moo sañ ci dëkk boobu mu ngi si commune Thiary moo tudd Ngambi fa la ñibbi parce que fam ba ko fa la feeñee aduna baayam ak fa taxoon na ne te baayam ak yaayam yëpp dem nañ bar sax mu bàyyi ko si daara ja kon ñibbi kër maamam ñibbi kër nijaayam ba mu fa demee 1929 fa la sëriñ bi nekk. ba may bayee ko si daara jaamal mu ngi ànd ak juróom-ñaari taalibe yu mag yoo xamante ni si si daara ja xamante ñoom ñu nekk taalibeem juróom-ñaar yooyu kenn ku nekk si juróom-ñaar ñu ngi amee ay ay ndongo daara yu ndaw kenn ku ne yaa ngi amee daara ju ndaw kon mu am mu indaale juróom-ñaari taalibe taalibe bu nekk am daara boppam mu ngi am ay xale yu mooy jàngal mu ñibbi kër nijaayam nekk fa 29. ba 1934 cinq ans mu xalaat ne soxla na espace bu ëpp bi mu nekk ndax wax naa yarekat la te dëkk boobu même su nekkee maam moo ko moom ay nijaayam a fa nekk parce que sët du am du ëpp doole si ndonal maamam si ay doomi maamam yuy dund moo xam ne moom ku war a sos dëkk boppam la booba la xel mi nekk si sos dëkk boppam mu dem seeti benn àll bi ñuy tuddee ngéewi mu ngi si departement wu Kaolack si commune Kër Kër Bakk ba mu ko seetee mu gis suuf si tàlli lool loolu nag mu ngi ko defoon 1933 mu ñëw def listixaar di seet dëkk boobu yàlla dagal ba mu defee xaar mu gént gis àll bi ñu wan ko ko àll boobu di àllam géewi mu ngi yaatu suuf si tàlli lool ci gisin mu nekk lu neex dëkk ci gisin waaye mu gis benn néeg ci àll bi ñu ne ko néeg bële dee benn soxnaang fa mooy Faatimata bintu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam sëriñ bi ne ah kon de balaa may dem danaa dem siyaar ko nuyu ko mu mu jëmali néeg boobu ci gént gi bi mu demee ba war a àgg si néeg bi am kuy génnee ci biti si biir néeg bi di di génn si biti mu tase sëriñ bi kooku xamal ko ne ko soxna seen mu ne nga dem ba déwén ba nga dem ba suba mu soor lay recevoir mu xam ne dëkk bii mu bëgg dëkk kon dëkkam la waaye wax nañ ko nekkoon na ngàntuwu ba déwén suba gént la jàppee woon déwén moo tax mu sos ko 1934 te bëggoon ko sanc 1933 mu nekkoon na dëkk bu xéeme moom tamit ndax am na yeneen mbindeef yu fa dëkkoon yoo xëy ne duñ ay nit fiiroon lool ci seen digganteeg nit wax nañ ne sax ci nettali mbindeef yooyu dëkkoon fa njiit la lim gënoon a bañ mooy ku tudd baatu yàlla maanaam ku nodd bari na ñu fa jaaroon bëggoon a dëkkee suuf soosu want yu demee noonu ña fa dëkkoon ñoo leen ko daan tere ñooñu ngantuwu si loolu du ne dañ am dañ amul capacité dëkk fa waaye lim do rek mooy dafa am ku fi war a dëkkee te ñëwagul kon ñay mbindeef dafa dëkk te duñ ay nit te daan ngantal ku fa bëgg dëkk seen nekkin foofu mooy xaar boroom dëkk ba bi sëriñ bi ñëwee nag war a nekk foofu war a nekk dëkkuwaayam mu goral ko boppam ànd ak am mbooloo am keroog kéemtaan feeñ na foofu bi ñuy gor ba yooroor bi fees loolu dëkkoon fa ak njabootam te du nit génn na si melokaan woo xam ne am na ñu ko gis jax ran si melokaan wu héeme pour ngàntal si woon loolu sëriñ bi moo ko mottusul boppam si loxo am fu mu jubalee loxo ba loola génnoon te waroon a ngàntal si dam ko daan defee ña ko daan bëgg a sanc mu ne wël bit dëpp topp loxo sëriñ bi sëriñ bi am na ñu wax ni kii ma mott su mu dem ak njabootam amatul droit taxaw fet sama ndigalu dëppal ànd naag moom dëppal googu dootu taxaw ba bakkanam jeex kon moom la daan gàntal nit ñi fu bëggoon a dëkk ba fa bëggee dëkk loolu fa njëkk jële mu dëkk fa def fa daara def fa jàkk di jàngale di yare nit ñi dafa bay moom it muy bay ñoom mu fay bay ñu fay bay mu nekk fa 1934 ba 1946 xelam nekkaat si sañc beneen dëkk booba la ñëw seet si dëkk bii suuf sii boobu nag àll la woon moom tamit ba mu ñëwee seet ko mu jabu ko mu fas yéene def ko dëkkuwaay gor ko ci diggante 1946 sa fin ba sanc ko 1947 lam sancee woon Madina loolu mu ngi continuer moom mu am si njabootam si ay taalibeem yu mu fa bàyyi am ñum àndal ñëw fii bi mu ñëwee fii dëkkuwaay daf ko dëkkuwaay boo xamee ne day am daara tabax fi jàkk samp fi daara di jàng jàngale di yare di xamal nit ñi yàlla loolu moom la fi nekkee 1947 dund fi 47 ba 1977 génnu dëkk bi mu am fi fanweeri at fii ay taalibe yu bare yu siiw yu nit ñi xam ñu si bari fii lañ ko fekk si fii lañ jaayante ak moom fii lañ ko joxee loxo fii lañ nekkee taalibe mu nekk fi fanweeri xat li ëpp si njabootam boppam fii lañ feeñee àdduna mu nekkee fi comme li ma la wax noonu ba yàlla gërëm dundam wàccee ko 1977 loolu mooy dundam moom ci dëkk bii yàlla dogal lit mu dund juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar soo delloo gannaaw ci suñu waxtaan wax naa la ba mu feeñee àdduna dëkk bi ñuy wax ndaa te dund na fa ñaar fukki at ak ñeent bàyyam wàcc digal ko mu laxas dem daara dëkk bi ñuy wax jaamal am fa juróomi at foofu lam fa waroon a def mat mu ñëbi kër baamam wala kër nijaayam dëkk bi ñuy wax Ngàmbi am fa juróomi at sanc dëkk boppam ma Madina Ndewen def fa fukki at ak ñaar sanc dëkk bii di Daaru Salaam 1947 nekk fii fanweeri at loolu soo boolee lii ma wax nii moo lay jox juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar moo tax damay faral di wax ne xarnu boobu mooy siècle bi moo ko moom ndax si bopp siècle bi lu judd te dund na si seekal bi lu ëpp trois quarts yi siècle téeméeri at la mu judd si bopp bi dem ba am juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar nga xam ne soo ko xaajee ñeent dund na si ñett ak lu tegal kon li tubaab di am de siècle bu mille neuf cent moom la loolu mooy dundam moom loolu mooy jaar-jaaram dëkkam ci dëkk yi ma wax la muy juróom dundam yépp ci juróomi dëkk yi la ko def ndaama jaamal ngambi madina ndewen daaru salaam lu mooy day faju ji yaramam masul dem fen ku ko soxla yaa koy fekk madina ndewen wala Daaru Salaam mbooleem ñum àndat ci diina mbooleem ñum àndat ci wàllu tariqa bi jox leen ko ñoo ko fekk Daaru Salaam wala Madina Ndefeen moom mu ngi tënku ci tariqa tijaan te baayam moo ko may tariqa bi baayam it moo ko jox mu muqaddam baayam mooy sëriñam kon moom léppam ci wàllu njàngam alquraanam njànga xam-xamam wàllu tariix lépp baayam la amul kenn ku mën a wax ci wàllu woowu ñuy waxtaanee ne def jëflante na ak sëriñ bi lu mooy sëriñu baayam moom tariixa bii nag tariixa bii mu amee sëtëb Cheikh Omar Foutiou Tall nga xam ne tariqa moo ko dugal fii ci Sénégal kër yi fi nekk tënku ci tariqa boobu yépp seen calala mu ngi bàyyeekoo ci suñu maam Cheikh Omar Foutiou sëtam bu tuddu Ahmad Sahet Tall moo daan bàyyeekoo Mali ci jamono boobu su ñëwaan Sénégal dafay dem seeti taalibe tijaan yu mag yi fi nekkoon sëriñ bi mu ngi doon nettali day dem Tiwaawoon seeti suñu maam Cheikh Sidi Alaaji Malick radiyallahu anhu su fa bayee dem ñeseen seeti suñu maam Abdoulaye Niass su fa bayee koo day dem Njaay Kunda dem Kaba Kota bis wala am xat mu ñëw Kaba dégg ñuy waxtaanee suñu maam jooju di waajuru sëriñ bi mooy tafsir xal yu daaw a ndaw Ahmed Seen moomu di sëtu Cheikh Omar Fouti moo dem seeti ko waxtaan ak yu daaw a Ndaw Ahmed Seen moom moo jël tariqa bi jox ko moo ko muqaddamal moo ko moo ko jox ñaari lijaase beneen yoon na ko jox ko sa ñaari doom yi nga gën a wóolu jox leen tariqa bi te jox leen lijaasa yi muy ñaari lijaasa suñu maam tafsir Aliou daaw ndaw jël genn lijaasa gi jox ko taawam muy suñu maam Babacar Ndaw jël beneen lijaasa bi jox ko sëriñ bi mooy suñu maam Cheikh Sidi Ladjo Ndaw radiyallahu anhu moo leen may tariqa bi kon may ko sëriñ bi lijaasal ko kooku dellu Mali yàlla dogal na ba mooy del siaat Sénégal mu ñëw wër comme ni ma la ko waxee kër yëpp ba àggaat Kaba si lañ ko xamalee ne sa taalibe bi boobu ñuy wax tafsir xal yu ndaw moom dundam jeex dem na barsaq si saa si rek dafa laajte ndax bawut fi doom ñu ne ko bana fi doom ñu tuddal ko sëriñ bi muy Maolana Sidi El Hadj Omar Ndao waaye jamono boobu sëriñ bi mu ngi woon jaamal ci daara ci ci diggante juróomi at yi mu nekk ci daara ji kon la fi Ahmed Sène ñëwaat mu yónnee ndaw jaamal parce que boobu mu ngi daloon dëkk bu ñuy wax naawel ci ci ci pegg jaamal su réewuñ bi ndaw li demee wax sëriñ bi ci daara ji ne ko Ahmed Sène Tall moo ne jaa naawe naawel gi moo la soxla sëriñ bi joxe accord ne dina dem waaye dañ koy muñal ba alxemes ndax boobu ñoom duñ daan jàng alxames pour wax la sëriñ bi nim fullaalee woon maanaam daara ja ak jàngin wa ba alxames jotee mu dem oy ji sëriñu baayam muy Ahmed Saint Tall ba demee mu waxtaan ak moom beneen kéemtaan feeñ ndax boobu góor gi moom itamit dundam sori na wóor na ko moom ne li des ci dundam bëriwut te yàlla dénkul ko doom ba waxtaane sëriñ bi ne ko man awma doom waaye yow laa def doom lépp lum amoon ci wàll woowu ci wàllu askaaru tarixa bi mu joxaat ko beneen lijaasa dénk ko mboolem askaar yi mu ak mboolem daal luy cëram ci tarixa bi mu ne ko man ama doom waaye yow laa def doom wóolu naa la moo ko sas foofu moo ko sas foofu silsilatu suufiya Ahmed Saint Tall wax ko ne ko la daan génnee ci diggante ñaari tuñu Cheikh na Tidiane Sarif loola dagan na Mouhamadou Xaali loola daan génnee ci diggante ñaari tuñu Cheikh Mamadou Xaali dagan na Cheikh Omar Foutiou la daan génnee ci diggante ñaari tuñu Cheikh na Omar Cheikh Omar Foutiou dagan na Amadou Seeku la daan génnee si diggante ñaari tuñu Amadou Cheikhou dagan na ma man Ahmed Seet waaye li daan génnee si sama diggante ñaari tuñ yi tey dagan na la yow Cheikh yow Sidi El Hadj Omar Ndao kon moom noonu la duggee si wàllu tariixa bi ñi nga xamante nii ñoo joxe tariixa fii te kër goo mën a dem te mu ngëpp tariixa bi ñoo jox ko ko ñoo jox leen ko ñoom ñoo ko jox sëriñ bi. te moom demul fenn ci mbaax ak yàlla fi mu toog la toog kii koy joxe moo dox ba si moom jox ko dénk ko ko boppam ne ko bëgg naa it su ma demee su ma demee barsax nga taxawal te boobu sëriñ bi amagut fanweeri at moom tamit kon si wàllu tariqa noonu mooy taarixam si wàllu tariqa tijaan dundam yëpp kéemtaan la kéemtaan gi njëkk mooy defaru ba pare mën a defere dafa wax yàlla ne ko nag ma cuub ci sa cuubu mbaax gi ngay cuubee te su ma cuubee si cuubu mbaax googu bu ma em rekk ci cuubu waaye naa man di cuube julli bi xàqin yaqiinun akmun sabiqan bi sibqatillaahi te wa man axsun min allaahi sibqatan wa nahnu loo xaabitoon mu defar ay nit ñu bari cuub leen façon boo boo mën a natt jaar na fa defar nit dana am koo xamee ni si taalibeem bi kéemtaan dox na digganteem ak sëriñ bi ndax moom ab sàmm la woon dalut baasin mi war jàngut mu nekkoon ak nijaayam waaye ba mu temee ba tollu si war a óoti sëriñ nijaayam wax na ko ko daan ko tudd ay nit yàlla pour mu dem foofu jaayante ak ñooñu waaye si mbiram yàlla heure bu ko ko waxaan rek bañ war a dem fenn su tuddee guddi dafay gis sëriñ bi te moom xamul ko heure bu ne rek mu ngi gis sëriñ bi te xamul ko su ko ba nijaayam tuddalee nit yàlla bañ dem fa su ko gisee rek day wax nijaay ne ko day wax nijaayam ne ko mën de nijaay kii may gis toujours bokku la kii ñu ñëw tey nañ mu ne nañ mu ñu dégg ba am xat sëriñ bi ma dina Ndawe nekk fa kooku dégg sëriñ bi foofu nijaayam bi ne ko am na sëriñ bu taxu si fii yarekat la jàngalekat la defarekat la yow nag fu ñu la mën a yóbbu rek soo àggee ne bokku la ki may gis nañ dem seeti kooku ba xam bi yàlla dogalee ñu ñëw gis sëriñ bi moom da koy nettali góor googa di wax ne boobu ñu ngi fekk ñu ngi liggéeyal sëriñ bi si ay toolam sëriñ baa ngi si ron génn garab ak dimb nee boobu basang amul sax taalibe yi dañ fàq ay xob ci garab gi lalal ko sëriñ bi mu toog si nee na ba ñooy àgg si sëriñ bi balaa ñooy wax ak moom rek la gestu nijaayam ne ko kii ma gis nii moom laa di gis toujours si gétt gi te la sa gën xéemu sax melokaan yi mu toogee nii ak yére yi sol moom laa ko gisee si gént gi kii laa bëgg mu nekk sama sëriñ nijaayam nu yoole ko sëriñ bi ñu waxtaan mu wax ko mbiram si la ko sëriñ bi joxee tariqa bi mu nekk taalibeem koo xamutoon lu mooy sàmm wante nekk ak nit ku baax dañuy wax ne kuy jaxasoo jaaykatu parfum soo soo xañee parfum du nekk jombe mbaax ak sëriñ bi maas ko courant bi muy maase mbaax maas góor googu mujj na si dundam muy waqafar Alxuraan te dalul jàng sax te moo ma nett li góor googu ne sëriñ bi moo ko waxoon ne soo demee ba sa bopp bi weex dal ñaan te loo ñaan yàlla mu def ko bu may demee barsàq dëkk ba mu nekkoon ñu bari xeeb ko fa mujj na nekk kilifa ak dëkk ba mujj na taxawal juma ci dëkk boobu boo xëy ne kenn fekkut ko si moom kese moo ko tawaxal moo ko taxawal la sa nit di participer njaboot ak boppam ñu mu jur lay doon moo tax woykat ba ne xéemu naa mbiram xomar ndaw def na jaa'ilan waliyan def jaam xorran ci lu wér def baadiyan xadaru cuub na ku ne fekk na fu dara newut mu def fa dara ba nit ñi xam ne fii dara newutoon fi waaye def na fa dara ka fa def dara mooy si si mooy Cheikh Sidi Ladji Omar Ndao radiyallahu dundam yëpp loolu moo ko jeexal tàkk mu defar ay nit ñoo xamante ni mujj nañ di defere comme ni ma ko waxee du neex a lim waaye ñi jaar si ñoom ñi jaar si moom deferu kenn xamul noonu toll ndax mission am si àdduna loolu la woon defere cuub ay nit. ñu xam yàlla xam yonent bi salaa salaam di jàng di jàngale di defere loolu mu ngi dox ba fi ñu jonu yàlla tey loolu mooy dundam si tënk mu ngi wàcc liggéey 1977 fii si Daaru Salaam yàlla dogal jabootam yépp jamono bi mu nekkee fii ñoom ñëpp ñu ngi fi woon ak moom si ay góoram ak ay jigéenam dama bu jiitu si góor mu ngi tudd Mouhamadou Moustapha Ndaw mbooleem doom bu góor bu mu xam yonent bi sallallahu la ko tudde doomu jigéen yi mu am yëpp waa kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam la leen tudde loolu yëpp lu muy wane mooy jeex gum jeexoon ci yonent bi sallallahu alayhi wax na ne su su su su su su nit feeñaan ci këram ñu yëgal ko ne ko am na ku feeñ jamono ci ay njabootam mu ne xelam dana daj ay mbokkam yu bare bare bare waaye suñ demee rek ba ngénte gi sës mu fàtte mboolem kuy mbokkam yonent bi sallallahu rek mooy nekk ci xelam ba ngént li paas ba mu tuddee ko ko su dee góor su dee jigéen mu tuddee ko waa këram su loolu paasee la xelam di dajaat yeneen mbokkam njabootam si taw bi ba si ki mucc góor ñëpp yoon bi sallallahu alayhi jigéen ñëpp ay doomi yonent bi wala ay soxnaam la leen tudde kon kooku mbiram yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nekkoon waliyu woo xamante ni kenn la ci waliyu yi mat sëkk ci yàlla mat sëkk ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam deferu day defere lu kenn xamul nu mu toll la defer kooku mooy Seydi El Hadji Oumar Ndaw radiyallahu anhu bi yàlla dogalee mu dem barsàq 1977 fekk na doomam bi jiitu woon ci doomam yi ñu koy wax Mamadou Moustapha moom dundam yàggutoon mu wàccoon fekk na samp gutoon kër sax doomam ba si tegee woon it ñu koy wax Mouhamadul Mansour moom it moo jiitu wàcca moo jiitu gu sëriñ bi sëriñ bi ba mooy wàcc kii magoon si doomam yi boobu mooy Cheikh Mouhamadinil Muntaxa moo wuutu toogaayam 1977 ba ba 2004 moo nekk xalifaam moom itamit la fi baayam ba woon rek mu ne si la baayam daan def mu koy def lam fi bawoon si mbaax mu wuutu ko si yokk ko si mbooloo mi moom it sanc na dëkk boppam moom seex mu Cheikh mu taxaak pour gën a yaatal liggéeyu baayam bi mu fi bawoon ànd ko ak ay rakkam ànd ko ak muqaddam yi ànd ko mboolem taalib kooku moo fi nekk 1977 1977 ba 2004 moom tamit yàlla gërëm dundam wàccee ko bi mu demee barsàq rakkam Cheikh Sidi Mouhamadul Basir moo fi nekk ñuy ñaan yàlla mu yàggal ko fi te may ko jàmm ba mission yi mu am si diina l'islam am ko si kër baayam yàlla defal ko si lu kawe njortam moom tamit mu fi nekk 2004 ba léegi yal na yàlla jox dund gu gën a yaatu te yàgg moom itamit mu jël tànk ya fa bàyyam bawoon ak magam kenn ku nekk soo ñëwee la nga fi fekkoon si ngay ne yokk ko ba mu fi toogee ba léegi léppay daaru salaam léppay mbooloo xam daaru salaam yokk na ko si xanam bépp lam njëkk def mooy xeesal jumaa ji xeesal xabru bi xeesal kër Sidi El Hadj xeesal ay kër yi soxnaab si Sidi El yokk lépp gën a taaral lépp waaye mu tombeek génération ndaw ay ndaw di fël ñooñu mu jël leen ñu am maase xilaafaam ki mu tàggat leen tàggat jamono jim ne nga xam ne si tund wii dafa amoon lu fi xamoon bam ñëwee yooyu la njëkk a dàq ña daan taxawee yooyu te duutoon lu diina gërëm ndaw yooyu mu récupéré leen dellooxaat leen diina ña daan taal ay géewu làmb di dung jël semaine ab lëmm soo xeendoo si dëkk bi fanaan fa def làmb wóyale dem si beneen dëkk fanaan fa def làmb loolu lañ daan lollee loolu lañ daan noore si kéemtaanam moom tamit loolu soppeeku ay daayira soppeeku ay gàmmo soppeeku ay siyaara soppeeku ay conférence ña daan wër di def làmb di def lu ñuy tuddee fuural yooyu dàqu ndaw ya daan ko taxawee ñu am beneen xalaat léegi ñu samp làmb ñu dem samp ay gàmmu samp ay siyaar weekend wi jot yi ñu daan defee làmb ñu koy def ay gàmmu di dajee di tudd yàlla di tagg yonent bi salaa salaam ba set loolu moo remplacé bi te loolu moom moo moo ko indi moo beesal loolu dàq yooyu newoon fi te te diine gërëmul ko mu samp di yi xam ne diine gërëm na ko tàggat si ndaw yi loolu moo wax la amatul fi léegi si tund bi yëpp kon kooku jar na ñaanal mu yàgg fi kon ni mu ko yokkee nag si saayar bi noonu la ko yokkee si baati ba ku nekk xam na ne ba mu nekkee xalifa ak léegi foo xool rek si lim xalif da fa gis ne yokkute am na si saar ak baatin ñu dalee ko ci dëkk bi diira lu mu fi nekk dëkk bi yokku na ci anam yëpp yokku na ci koñ yëpp yaakaar naa ne am na jamono soo fi soxlawaan teere loo am loo am loo am rek am waaye léegi li war dëkk bi ko fi soxla teere yaakaar naa ne danga làmb lu am solo loolu nag la mooy waral rek mooy lu ñëpp bëggandoo la lu ñëpp bëggandoo nag faw dana am ay jafe-jafe yu fi am wala dana dana dana ñàkk mel ni jamono yu njëkk ya loolu kon yokkute la moo tax xilaafam ñu ngi ñaan yàlla mu yàggal ko te may ko jàmm moo rakkam yi koy jàppale ñu tudd ci Cheikh Mamadou Habib mu sës si moom nekk loxol nday jooram mu denk ko jumaa ji mu koy taxawee xame kàddoom di taxawee lépp wuti ci sëriñ bi te mat ko sëkk nag ak rakkam ak cheikh Mouhamadou ni mun tax am murtada ñaar ñooñu ñoom la fi sëriñ bi mag bi desal comme ay jaboot ay doomam ak ay doomam yu jigéen ak ay sëtam ak ay taalibe mi mbokkam ñoo ñoo dëkk dëkk di leen gërëm di leen sant si ñëw bu ngeen ñëw fii euh, génnee fi lu am solo lii ñu génnee fi euh, di ñaan yàlla euh, groupe leeral yàlla jëmale leen kanam ba projet yi ngeen am yëpp yal yàlla defal leen ko ba defal leen ci lu kawe seen jot di yóbbante nuyoo si kilifa ga ak ñépp di wax ne kontaan nañ si turu sëriñ bi yoon bi ngeen ñëw fii lu am solo la di gërëm mbooleem kuy déglu lii ak di seetaan di wax ne lu tuuti la si lu bari luñ mënoon a wax si moom waaye yoon du am si benn leen wax ne ñëw bii neex nañu lool di wax ne leeral it def na lu rëy encore ndax lii su ngeen xamee ne teg ngeen ko da ngeen xam ne def ngeen lu neex nit ñi lu neex dëkk bi lu neex taalibe yi te ñu ngi partout ñu ngi si réew mi ñu ngi ci bitim réew waaye lu neex jullit ñi sax ak ñu duut jullit ndax mbaax la te mbaax ñëpp ko bokk te sëriñ bi danaan wax ne moom ñëpp ay njabootam lañ comme nag moom dafa njabooti ñëpp. kon lii génn fii si xam-xam boo xamante ni si moom la ak dundam te kenn mënu ko peeg keneen su toogoon wax dana wax lu ëpp lu mu wax xëy na suñu amoon occasion yi suñu amee yeneen occasion danañ wax lu ëpp lii waaye lii moo jàppandi tey ñu leen di gërëm di leen sant leneen ñaaral yàlla yàlla may leen ngeen dellu si jàmm te fekk fa jàmm